Djibril Gningue maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi nga nekk membre bu GRADEC groupe euh, de réflexe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance euh, déjà ma laaj ci révision exceptionnelle des listes électorales yi nga xam ne dinañ ko amal ci 6 avril 2023 jàpp 6 mai 2023 lan mooy importance su révision exceptionnelle des listes électorales. yeesal bi nga xam ne dañ ko war a yeesal euh, liste électorale yi euh, euh, solo bi nga xam ne moom la am mu ngi wekku ci ñetti ñetti mbir benn bi mooy ñi nga xam ne dañu génn àddina te nekk ci liste yi dañ leen a war a génne ci liste yi te ci biir boobu lañ koy mën a def beneen bi mooy ñi nga xam ne ñi seen at ñi ngi soog a matal fukki at ak juróom-ñett donc mu li li nga xam ne at yi nga xam ne moo leen di may ñu mën a nekk électeur maanaam ndaw ñi ci la mën a bindu ci liste électorale yi ah, beneen bi mooy ñi nga xam ne dañu changer statut wala adresse tel que ku nekkoon par exemple euh, militaire daal di jeexal service nekk ñëw nekk civil wala nga nekkoon civil dugg nekk mi solu militaire wala fi nga dëkkoon nga nekkoon à l'étranger itim réew dellu si changer adresse et cetera wala nga nekkoon beneen ré benn région jóge fa demaat beneen région donc yeesal boobu nga xam ne euh, moom lañuy ñuy yeesal liste yi nag euh, day tax liste bi doon liste bu mucc ayib boo xam ne du am benn lënt-lënt du indi benn jiixi jaaxa ci vote bi loolu nag saa suñuy dëgmal élection dañ ko war a def ci li ñuy wax révision exceptionnelle waaye code électoral bi wax na aussi ne at mu jot sax bu fekkee ne amul élection yi war nañ ko def ci li ñuy wax révision ordinaire bi nga xam ne day war a tàmbali Euh, benn fan ci weeru février dem ba fanweeri fan ak benn ci weeru juillet mu doon juróom benn weer donc loolu dafay wane rek solo bi nga xam ne euh, euh, yeesal bi ñuy yeesal liste électorale yi am na ko. d'accord léegi Djibril Gningue est-ce que un mois lañ ko war a yeesal comme ni nga ko waxee est-ce que un mois yi doy na pour ñu mën ko def waaw wala déet. waaw benn weer na euh, benn weer nag tuuti na lool ci yeesal boobu ndax gis nga li ma la wax yëpp liggéey bi li ma la wax yëpp ne war nañ ko def. Mm-hmm. dafay laaj liggéey bu bëree bari boo xam ne bii dafay am euh, commune bu nekk dina am gën gaa neew benn commission bu fay nekk alors commission bi euh, day am président bu koy jiite maire bi dana fa yónnee ndaw mu teew fa. parti yi dañuy yónnee ndaw mu teew ñu teew également ci commission bi euh, Sénat commission nationale euh, autonome commission électorale national autonome moom itam daf fay teew alors commission yooyu euh, danañ ko def fépp ci département yi du Sénégal ak ci commune commune bu nekk n'est-ce pas alors rien que l'installation des des commissions dafay dafay jël temps hmm, n'est-ce pas rax ci dolli euh, ndaw yi nga xam ne amuñu carte d'identité te ñu ngi soog a matal fukki at ak juróom ñett il faut que ñu dem uti carte d'identité dellu si soog a mën a bindu ci euh, ci liste électorale yi waaye euh, mujjeel bi mooy que toog nañu ñeenti at yoo xam ne yi amul révision ordinaire bi ma la doon wax léegi deux mille dix-huit amul révision ordinaire euh, deux mille vingt amul deux mille vingt et amul deux mille vingt deux amul kon nag euh, ñi nga xam ne waroon nañu bindu ci at yooyu yëpp ñi ngi xaar actuellement pour mën a bindu ci révision bi pour mën a wote te xam nga ne ñooñu ñëpp bu ñu naree bindu alors euh, benn weer boobu dana xat lool pour ñu mën ko Euh, léegi euh, Djibril Gningue euh, ñenn ci ñi nga xam ni bindu nañ am na ñoo xam ne daal en tout cas bu ñu jotee ci seen seen carte d'identité dañuy gis ni mënuñ voter maanaam dañ leen di bindal ne peut pas voter ex situation bu mel noonu lan moo koy expliquer ba ñu bindal citoyen bi que mënul voter mënul daam bokk ci élection daal <coughs> waaw loolu li ko waral mooy euh, pour nga nekk liste électorale yi carte d'identité ngay yóbbu pour ñu mën la bind ci liste électorale bi alors te euh, boo amee carte d'identité ci diggante boo xam ne bii euh, mbindu mi ci liste électorale yi weetu na alors période boobu dañ la ciy bindal ne na peut pas parce que voter amul ci diggante boobu alors pour nga pour nga ñu ñu ñu ñu bindal la ci ne mën nga voté ñu bindal la ci données électorales yi. il faut nga jël carte d'identité bi. yóbbu ko ci commission yi nga xam ne dañuy bindu ci liste électoral bu ko defee ñu ñu jël booba li nga indi jox la beneen carte boo xam ne day am carte d'identité ba pare am ay données électorales alors euh, loolu nag euh, moom mooy problème mille 2016 rek. mooy at mi nga xamee ne bi ñuy def refonte liste électorale yi ci la ñu maye woon nga mën a ñëw ci devant la commission mu bind la ci carte d'identité ci fichier national carte d'identité ba pare bind la liste électorale mais lu weesu 2016 il faut nga dem ci ut carte d'identité ñëw fële ñu soog la mën a bind te loolu euh, dafay jël temps te bu fekkee ni di da ko def ci moment boo xam ne bi élection at moo xam ne bi élection amul dañu d' accord beneen laaj bu am solo est ce que mën nañu am yaakaar fii ak élection élection présidentielle bu deux mille vingt quatre euh, dinañ am fichier électoral bu mucc ayib. waaw euh, fichier électoral bu mu ci ayib mën nañu wax ne Sénégal am na ko ci bu sukkandikoo ci màndarga yi nga xam ne ak tegtal yi nga xam ne ñooy mandarga ak tegtali. yi ñu nangu ci àddina ci àddina bi maanaam ci defarum électoral euh, électorale euh, mais euh, problème bi nga xam ne Sénégal am na ko mooy organisation ak fonctionnement wu liste loolu nag moom la ñu waxtaan léegi man ak yow mm-hmm. da ngay gis ne at yi day am révision ordinaire at yële du am nga gis ne at yi révision exceptionnelle bi dina mat ñaari weer wala ñetti weer yeneen at benn weer am na at moo xam ne sax matul benn weer def naa ñaar fukki fan la waaye te loolu dafa indi jafe-jafe yu bëree bëri bëri yoo xam ne liste bi day continuer di comporter ay nit ñoo xam ne dañu gaañu ñu waroon leen génne ci liste bi day am ñoo xam ne dañuy continuer nekk ci liste bi fekk perdre nañu seen droit civil et politique am ñoo xam ne ñu continuer nekk ci liste bi fekk changer nañu adresse donc problème boobu la Sénégal am problème boobu nag li ko waral ñaar la mooy que liste bi dañ ko lëkkalewul ak état civil il faut que Sénégal toll foofu àgg foofu fi nga xam ne réew yu mag yi fa la ñu toll nga xam ne liste bi dañ koy lëkkale ak état civil bi nga xam ne day jël mën a jël tout suite ñi nga xam ne juddu nañu dem nañu euh, juddu nañu ba am fukki fan euh, fukki weer fukki at ak juróom-ñett day jël aussi ñi nga xam ne wàññeeku nañu de façon automatique alors il faut que également ñu lëkkale liste électorale bi ak yeneen fichier yi maanaam euh, fichier passeport euh, fichier wu police fichier wu justice pour que euh, la am foofa aussi mën a dëppoo ak ak liste bi loolu nag dafay laaj comme ni mu amee ci yeneen réew comme France Euh, liste bi ñu confier ko kuréel boo xam ne euh, loolu rek mooy nekk liggéeyam. d'accord beneen euh, laaj est-ce que mën nañu sàcc ba léegi ay élections fii ci Sénégal Djibril Gningue. waaw ni ñu sàcc élection moom comme ni ñu ko daan sàccee temps bi nga xamee ne dañuy wote sans carte d'identité sans isoloir sans encre indélébile sans biométrie. Ah, loolu mënatul am sàcc façon sàcc boobu ñu daan def mënatul am parce que léegi dafa am biométrie am indélébile am isoloir am carte d'identité mais ah, am na yeneen fexe yoo xam ne yii mënees na ko def ah, pour jëmale processus électoral bi foo xam ne fii ñu foofu la war a jëm waaw pour que euh, nga am résultat yi nga xam ne yow peut-être yooyu nga soxla waaw am na ay pexe yoo xam ne euh, mënees na ko def pour que parce que processus électoral bi ñu te loolu boo ko gisee mm-hmm. c'est que processus bi ñu am dafa am ba léegi ay points de euh, vulnérabilité waaw ay points de vulnérabilité yoo xam ne bokk na ci li ma la waxoon léegi ci fichier bi par exemple tu vois am na yeneen aussi point de vulnérabilité yoo xam ne mooy ki nga xam ne moom mooy organiser élection yi eh gis nga ne am na at yoo xam ne dañu am na Abdou dafa jëloon général Lamine Cissé koo xam ne jàmbur la jëlewul benn parti politique loolu aussi point de vulnérabilité la alors boo jëlee également euh, parrainage bi nekk na beneen point de vulnérabilité ci processus électoral et cetera et cetera bon Mm-hmm. donc euh, yooyu tax na ba euh, mënees naa dawal ay pexe yoo xam ne euh, yëpp yi du du du nekk li nga xam ne noonu la war a nekkee. noonu la war a nekkee. voilà voilà dernier mais en tout cas sàcc élection yi moom. Mm-hmm. comme nañu ko naan defee. Mm-hmm. loolu moom day gën a jafe ak mu nekk day gën a jafe. voilà dernière question Djibril ñing laaj la ci tension politique bi nga xam ne actuellement moo am ci réew mi en tant que membre société civile euh, ban kàddu ngeen ci am euh, ci fitna gi nga xam ni fi ñu toll nii moo am ci réew mi ñuy ragal sax mu daal di koy basculer carrément parce que ci 30 décembre euh, mars bi procès Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang dina am te gis nga tamit génn bi nga xam ne procureur de la République génn génn na ko en tout cas ñu bëri euh, tiital Sénégal yan kàddu nga si yëkkati. alors la <clears throat> situation politique nga xam ne <clears throat> ci la boo xam ne euh, ci la Sénégal nekk euh, mën nañu wax depuis mois de mars deux mille vingt et loolu nag li ko indi mooy jàmmaarloo bi nga xam ne euh, am na ñaari taxawaay yoo xam ne euh, dañu ko dañ ko jàmmarloo taxawaay bi nga xam ne moom la euh, pouvoir bi taxaw n'est-ce muy taxawaay boo xam ne daf ko wéer ci mbiru justice ak mbiru militaire n'est-ce pas ak taxawaay bi nga xam ne moom la opposition radicale bi taxaw mooy euh, taxawaayu fippu taxawaayu résistance ak euh, confrontation ñaari taxawaay yooyu nag dafa nekk ñaari taxawaay yoo xam ne bu ñu dajee euh, mënul jur jàmm ci réew mi te bu ñu ko seetaanee mën na dugal réew mi ci guta ah, kon nag li nga xam ne ah, moom moo ñu mën a génnee ci jàmmaarloo bi nga xam ne ñaari taxawaay yooyu dañu ko jàmmaarloo mooy euh, réew mi dellu ci dal ñaawa ñoom ñaar ñëpp ku nekk dellu ci dal ñu daje mën a waxtaanee li nga xam ne moom moo leen féewale waaw muy ay mbiru élection muy ay droit mbiru droit civil et politique muy mbiru parrainage muy mbiru troisième mandat bi voilà muy mbiru kan moo war a organiser élection yi est-ce de l'intérieur la wala dañu war a tànn une personnalité indépendante et cetera alors yooyu yëpp yaakaar naa ne bu ñu ko waxtaanee comme ni ko Sénégal daan defee euh, mën nañu am ay solution ay accord euh, yoo xam ne yi euh, Sénégal dina dem ci élection yi ñu dëgbal ci jàmm génn ci ci jàmm ay du am fitna du am Euh, bu ko defee euh, Sénégal euh, jëm kanam waaye lu dul loolu yaakaaruma ne logique militaire et judiciaire bi nga xam ne moom la nguur gi continuer di ko doxal ci kaw opposition bi mën a jur jàmm mën a indi jàmm pour réew mi ak dal n'est-ce mën a indi réew mi génn ci Djibril maa ngi lay remercier bu baax a baax d' accord maa di la sant merci beaucoup. voilà Djibril Gningue may fàttali yow euh, membre GRADEC nga di groupe de recherche et d' appui à la démocratie participative et la bonne euh, gouvernance ñu lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. merci Ndeye Comba. merci Ndeye Comba.